auzu billahi min aseytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfaatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim sallallahu ala muhammadin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi nga xam yéen a safoo seen chaîne bi di Diwane TV ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen jaajëfal ànd bi ngeen ànd ak ñun di liggéey bi ñoo ngi leen di nuy bu baax a baax a baax ñeen ñaanal tawfiix àdduna ak ju àllaaxira barkab Seydina Muhammad ñeen ñaanal jàmm sax dàkk barkab alxuraan xewelu saawaan baawaan di wax ni ngeen way di abonné tey partage vidéo yi te wax ne képp koo xam ne yaa ngi safoo seen bi ñoo ngi sàkku si yow diggante jullit ak moroom ma mu sax si jaamu suñu boroom ak ragal ko ak topp ko te sellal ay jëfam te wattu lépp loo xam ne ak mooy la wala lépp loo xam ne doy jur ak selladi te yéene ñëpp jàmm te jaamu yàlla te bañ a def kenn la bon te def la mënal boppam ci aw yaram mooy aar ko te nungoo liggéey la ca des bàyyi ko suñu borom te di ko ñaan mu defal ñu xewal bu nu ko defee lépp lu nu ko ñaan ci alxuraanu karim dana ko defal incha allahu rabbi waaye nag ki nga xamante ne bii sax suur day bëgg dëkk ci ak mooy yaramam du sell xam ne sax suur dangay nekk ci doon koo xam dafay takkook sobe mënta jariñ ci alxuraan loo ko mën a jox ak ku ko mën a ñaanal du tax mbiram dem fenn ndax ak mooy day tëj wërsëg te day gàttal aw fan baraana lu ne gis ci dee ndaw yu bari lu lépp bari mooy rekk la te baraana koy gis mu tëju lool lu bari ba rek mooy mooy tëj wërsëgam te ñu mbokk yi nin ko baaxoo def saa su nekk tey ñu indi leen lu am solo lool muy bayre doon bayre nag boo am doole lool comme ni ngeen ko yi ngeen di gis wan nañ mi la ida hawa ma dalla zaahibuka ma hawa wan nañ mi ngay bind aaya bu si nekk nga def ci turu jigéen ak santam da ngay bind war nañ ba mu jeex waaye aay bu nekk danga nga def turu jigéen par exemple nga ne war nañ ñu isaa hawa daan ni xaddindooy maa dalla zaahibukum maa xawaa noonu moom itam ama yantiq wa maa huwa nooyun koy jàppoo insha allahu rabbi ba mu jeex takk aaya boo dem danga fay def waaye nag turi bu nuroo dangay fexe xool turi yi nga xam ne bii dinga ko ma def si aaya bi aay te benn du si bokk ak moromam te yëpp doon turi jigéen bu dee bayri jigéen la am nga ci bëgg incha allahu rabbi nga boore ko parfum ak xorom ak suukar nga sangoo ko si ab jànj maanaam jànj mooy palaasu xorondom fu ay xorondom di nekk incha allah nga sangu ko fa waaye bayre bii bayre bu am doole lool la ci wàllum soxna yi ku ko def ku nekk te ñeme yàlla boo amul sens mooy nga dëkk ndax jigéen dana la wut ci lool te dana la topp lool. te danañ la safoo lool sax incha allahu rabbi mbokk ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di wax ni lépp loo xam ñu ngi koy joxe seen bi fas yéeneen koy càmbaram doon lu wér ñu indil leen ko waaye ki nga xamante ni moo koy jariñu tam na lu ci boppam ba sellal jëfam sellal aw yaramam ba lu ci tàbbi rek suñ borom man ko caa defal ijaaba loolu lépp daal di nangu kon ñu ngi leen di jaajëfal di wax ni ngeen wéy di abonné partage vidéo yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu